ma nekk euh, li ñuy naan aspirant à la coordination maanaam bëgg a jiite ndaw yi ci sama commune waaw am ay ambition pour président de la république pour que mu réussir mission pour que ñi mu dénk mission am ci commune bi tamit ñoom ñëpp ñu ñu am une réussite totale waaw léegi nag boo boo boo boo càmbaree mbir mi ci commune bi dafa mel ni dafa am ndaw yoo xam ne dafa am ñu leen di xabtal ñu leen di xabtal ñi saaga seen ay moromu ndaw ñu leen di xabtal ñuy jéem a menacer seen ay moromu ndaw yaakaar ni loolu mun na tax ñu dellu ginnaaw ñun duñ dellu ginnaaw waaw kuy def politique da nga war a ñeme li ngay def ku bugg sa dëkk danga nga war a am fit liggéeyal sa dëkk donc kon duñ dellu ginnaaw dañuy ànd ci xeex boobu ñooñ ñooñ nag ndaw yooyu dañu jóg def assemblée général sans ñi nga xam ni tey jii ñu ñëw jiite partie bi def assemblée général sans ki nga xam ni mooy euh, coordonnateur wu APR ci commune bi muy Aliou Mara def assemblée générale sans euh, euh, yëgal ko yeneen responsable yi muy docteur Ndeye faatu Ndiaye dem mi nga xam ne mooy directrice de la famille def assemblée générale sans yëgal ko responsable yu bëri en tout cas ñenn ñi bu ñu ko yëgee ñeneen ñi yëguñu ko ba pare li gën a am solo mooy du yow jeune bi nga xam ne yaay candidat yaay organiser assemblée général déedéet ki nga xam ne moo doon jiite ndaw yi te muy génn. moom kañ yaa xayti moom ci moom la gën a jekk mu waxtaan ak responsable yi ñu dellu si ci aspirant yi ñi nga xam ni tey ñoo bëgg wutu wuutu poste boobu léegi ñooñu noonu tamit bu ñu discuter ci euh, critère organiser ko tey jii ni ñu organiser ko que le meilleur gagne ku gagné nga jiite ñeneen dugg sa bureau mais yow da nga ñëw organiser assemblée générale euh, sans sans nit yi parce que da nga ragal adversité euh, kenn xamul foo jëlee say say say mbooloo parce que dëkkuñu sax Sicap nga pare autoproclamer sa bopp euh, yow yaay yow yaay coordonnateur et que yow euh, nouvelle équipe bi bureau bi daa ko kon yow daal ñun daal dàq da ñu dàq da ñu dàq sax APR parce que ñun at euh, kuréel bi ñu mën a bokk mooy kuréelu ndaw yi bu fekkee da ñu dàq APR ñun ak suñu ay ndaw wax ko président parce que tamit président ñun dinañ ko adressé un courrier bu ñu yëgalee ba pare ki nga xam ni mooy suñu kilifa ci ndaw yi président tabb ko muy Moussa Sow donc euh, dañu bëgg a wax ndaw yooyu ñoom ñu ngi ci njuumte bu mag a mag te njuumte boobu nañu reculer dellu ci ginnaaw bu fekkee responsable moo nekk seen ginnaaw na defaruwaat na gën a na gën a am euh, taxawaay euh, tëddee njaaxanaay ci ndaw yi liggéey pour président de la république ëllëg bu ko président bu président waree jiital dina jiital kenn pour mu pour mu jiite commune bi bu fekkee dañu war a tàbb suñu biir ñun waa APR dinañu toog tàbb suñu biir tey nag dafa am loo xam tam foog ma wax tey affaire bi dafa war a changer dañ daan dem élection nga gis ni que daanaka ndaw yi sax dañuy sori ci liste yi nañu xam ni ndaw yi nga xam ne tey ñoo fi nekk tey mën lu mag yi mënul mën génne ay femmes mën génnee ay jeunes dañu war a nekk ci position yu baax ci liste yi ëllëg ñu mën a nekk ay conseil municipal mën a càmbar li xew ci mairie bi mën a xam euh, tali yu yi naka yan pexe moo ci am lan moo tax defaruñ ko boobu ba tey est-ce que mairie bi li muy encaissé recettes yi ndax doy na pour mun a toppatoo hôpital bi fay docteurs yi toppatoo waale cadre de vie bi càmbar loolu yëpp ñun ah, fii presque temps tout le temps dañuy tout le temps dañuy tout le temps tout le temps dañuy def ay set setal fii kon ñun ko cadre de vie lu ñu ñor la lu ñu ñor la waaw li ñu bëggal ndaw yi nag mooy autono autonomisation mooy ndaw di ndaw yi ndaw am xëy ndaw am xëy wala ndaw am projet am financement mun a liggéeyal seen bopp di di di di di rembourser ci bindal nit ay projet ci nañ dëkk kon jot na tey ndaw yi mën a amal seen bopp ñun fii déjà au niveau de la commune am na yoo xam ne tàmbali nañ ko xaaruñu ci benn kilifa ëllëg bu sottee duñ ko jël di ko teg ci loxo kilifa de a ah, ah dañuy taxaw ne ñun ndaw yi ñoo xeex bind projet xaatim ko jaayante bàyyi financement génn ñu jox ko suñu ay moromu ndaw maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant. vraiment ah. ñoom seen assemblée générale bi ñu nga xam ne tàbb nañ ko. ta euh, def nañ ko sant tàggu si yi. loolu nul et non maanaam loolu euh, ay waxi kesew kesew la waxi dof parce que tey jii nii waxi dof la parce que ñëpp tooguñu tey waxi dof la parce que parti bi am na ay commissaires yoo xam ne ñoo doon valider comité yi ñooñu bu assemblée générale jotee na ñooñu ñu ngi ko ñëw valider bu fekkee amul texte ci parti bi buy wax ni que tey assemblée générale yi ni la war a demee wala nële la war a demee mais tey jii nii euh, le retour c'est vers le coordonnateur national pour que mu proposer ñu ci yan critère nañu organiser assemblée assemblée générale ku ci taxaw nga ne COJER dafa autonome tamit bu autonome tamit bu autonome tamit parti bi li tax mu am coordonnateur euh, des cadres am coordonnateur des jeunes am coordonnateur euh, euh, parti bi ci boppam c'est parce que am na hiérarchie donc il faut que ñooñu ñëpp toog ñooñu ñëpp yëg ñooñu ñëpp àndandoo ñooñu ñëpp validendoo ñu wax ci yan critère nañuy demee fii ñu fi nekk ñëpp ay ndaw nañu ils sont pas âgés ay ndaw yu mën a votel président nañu weesu nañu 18 ans gëm nañu dëkk bi gëm nañu Sénégal mën na changé waaw ñu ngi féliciter président Macky Sall ci gouvernement bu bees bu mu teg di ko di ko di ko di ko di ko gën a ñaax pour mu gën a góorlu vision bi nga xam ne ñun ñoo ko bokk muy euh, plan Sénégal émergent mu gën ci góor góorgóorlu gën ci ànd ak ndaw yi mu gën a wóolu ndaw yi ba ëllëg ndaw yi mën a dugg assemblée nationale ba ëllëg ndaw yi mën a dugg dans les instances euh, de de de décision fépp foo xam ne dañ fay dañ fay dañ fay décider waaw di gërëm bu baax a baax a baax.